Super, super, hey! mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu tey làmb dafa am gan ah, gan yi nga xam ni nag làmb am na ko tey gan yi bari nañu lool rawatina ki nga xam ni moom moo di adjoint au gouverneur de Thiès ndax xam ngeen ne fii ñu nekk ci région de Thiès la bokk adjoint au gouverneur de Thiès di monsieur Sidi Guissé euh, Thiong daal di ñëw représenter monsieur le de la région de Thiès ñu koy wax monsieur Amadou Moustapha Ndaw Mon Dieu mon mon ngi Andando, chef de service régional des sports Mame Saliou Sow y ñaar ñi militants pays, toog di fi représenté ñi nga xam ne ñoom di représenté comme monsieur l'adjoint au gouverneur de la région de Thiès monsieur Sidi Kissé merci d'avoir répondu à l'invitation du groupe Bécard. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Luc Nicolayenko. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Arlou Lamb. Taï monsieur le gouverneur. Merci, monsieur l'adjoint le gouverneur. Merci d'avoir fait le déplacement. mbokk yi ah, xam ngeen ni tey bés bu mag la tamit ci làmb ndax làmb ji nga xam la ñuy xaar làmb jooju dafa mel ni ay euh, fan rek moo ci des ki nga xam ni moom moo di Ama Baldé yegg si na Modou Lo tamit ak escorte ki nga xam ne moom moo di Wili gis ngeen ko noonu euh, mbokk yi tey nag day doon bés bu mag ci nga xam ne moom moo di EDK nga xam ne moom moo ñu woolu fii EDK nag dafa di koo xam ne Sénégal moo ko moom. Sénégal doomu Sénégal moom moom EDK EDK nag am loo xam ni daf ko junj ci làmb war ko def tey bi ci làmb ne tey EDK dafa ñëw ngir yëkkati li nga xam ni moom moo di làmb gën ko doole ku xam EDK yàgg la ak làmb waaye tey dafa am benn xar kanam boo xam ni moom la EDK bi euh, tey bi ci li nga xam ni moom moo di face to face bu mag bi nga xam ni moom moo di Modou Lo ak Ama seen janoo tey ah tey nag ci programme bi dañu ne woon vingt et une heures trente la ñu bëggoon commencé am nañu presque cinquante de retard cinquante minutes de retard nag baaxul daal jël suñu responsabilité ne dañuy tàmbali li nga xam ne moom moo di xew-xew bi. ñooñu ah, mbër yëpp ñu ngi leen convoqué woon vingt deux heures il est vingt deux heures et quarante sept minutes kon nag ouverture bi tàmbali na gouverneur la ni moom mooy war a kaddu.

bu fegalee ki nga xam ne moom moo di Mbaye Ndiaye teewal ci Luc Nicolas Enko Luc Nicolas Enko war a ñëw nga xam ne nag moom dañ ko xam ci li nga xam ne moom moo di liggéey bu yàgg bi nga xam ne moom lay defal làmb daal di ñëw moom tamit jël kàddu ñu daal di déglu ki nga xam ne moom moo di directeur commercial bu EDK di monsieur Ibrahima Diop di ko laaj lan moo tax. mu daal di ñuy indi ba fii nga xam ne moom moo di EDK EDK Yeba ñu daal di indi tamit ki nga xam ne moom moo di Viviane mu daal di ñëw indi nga xam ne moom moo di Bass mu daal di ndax dafa war a nekk fekk indi tamit ki nga xam ne moom moo di waykat boobu di Jéba moom tamit ndax yëf yi dafa war a nekk fekk. Ah, daal di indi nag ki nga xam ni moom moo di ah, ñii nga xam ni ñoom ñoo di waa ah, produit bi nga xam ni moom la ñuy lancé tey ci face to face bi ñoom it ñu daal di ñëw jàkkaarloog ñun daal di indi tamit beneen artiste xam ne surprise lay doon salaamaaleykum. waaleykum salaam Boubacar Diallo ñu ngi kontaane ci liggéey bu am solo bi nga xam ni def nga ko ci làmb ji ni mu ko waxee rek tey jii télé yëpp tàkk ñëpp di seetaan face to face bi dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ànd ceeg l'innovateur de la lutte sénégalaise mu di Serigne Fallou Luc Nicolaï tey jii dañu nar a dund guddi goo xam ni guddi lamb la dañu nar a dund guddi goo xam ni guddi économie la waaye dañoo nar a dund guddi goo xam ni guddi musique ku wax sport wax musique lu mën a ànd la waaye tamit ku wax koom-koom bu yokk loolu tamit.